en tant que politicien euh, yàlla dogal ñuy def politique nekk ay acteurs tamit ci ci wàll wi nga xamante ni nii euh, ñu ngi ci yëngu muy politique bi vraiment gis nañu ni xëy na liste yi bari nañu mais incha allah kenn ku ci nekk euh, ci sénégalais yi miin nga élection te xam nga ko. jàpp naa ni loolu noonu rek bu bu bu kenn ku ci nekk defee li nga war a def xëy na teel a ñëw voté si incha allah yàlla mun na dogal. Euh, avant 18 heures sax bi wax ni bi ñuy wax ni la ñuy collecturer kii bi euh, dina jeex euh, élection yi dinañ ci jeex ci jàmm. waaw comme ni ñu ko waxee maanaam ñun thème bi nga xamante ne lañ ñu doon développer ci conférence bi nga xamante ne ci la ñu newoon muy nii nit ki lépp li nga xamante ne lii nii loolu nga liggéey bés dina ñëw yàlla fay la lu kawe sax sa njort. na ñëpp delloo si seen xel yi ci yàlla suñu borom mi nga xamante ni moom mooy joxe nguur ko ko soob ñu jàpp ni Sénégal 14 million de sénégalais lañu ñu ne ñi ñu war a dem représenté ñu à l'Assemblée nationale ñu war a nekk 165 euh, sénégalais kon war nañu xam ne ci biir 165 yooyu yàlla moom moo dogal ñu nekk war ñu représenter foofu. keneen ku yàlla dogalit nga représenté Sénégal fenn it dina di nga ko àla kuli ali nit mënu ci dala dina dem nañu delloo ci suñuy xel yi gëm ni kat ki nga xamante ne la ko séqal muy le président Macky Sall ñëpp xam nañu nit koo xamante ne la ku ku ku kuy sédd kóllëre la koo xamante ni it ku fonk doomu aadama la na ñu gëm ni xëy na ñoom seen wàll dafa egseegul mais bu egsee incha allah rabbi yàlla dina ko yombal na ñun ñëpp takku comme ni ñu takkoo woon àndandoo ak moom gagnendoo gouvernendoo ensemble te ba léegi nii ci ci principe yooyu noonu ci la nekkee ak coalition bi fu mu war a rafetee mu rafetal ko bu jaree sax mu xañ ay nitam sax dafay xañ am ay nitam kon nañu jàpp ni soo amul lii fii yàlla may na la leneen feneen ñun ñëpp ni ñu àndee woon ci ngor àndee woon ci pas-pas ak ak nañu gëm ni lii yàlla moom moo ko dogalee ca kamu soob képp ku ñu fi tegit bu fekkente ne lañuy wuyoo di début à la fin ba léegi mu ngi continuer di nekk war nañu mën a fexe xam ne bu ñu jëlee ci parti socialiste wala ñu jël ci parti AFP wala ñu jël ci APR wala ñu jël ci beneen euh, mouvement wala parti na mel ni comme candidat boobu noonu candidat au coalition Benno Bokk Yaakaar la en tout cas au niveau du département de Thiès loolu mooy euh, war a nekk suñu ngëm-ngëm loolu moom moo war a nekk suñu liggéey ba ñu fexe ba commune bu nekk ci biir département bi euh, vote sanction euh, ak boykot gëm naa ni képp koo xamante ne nii yaa ngi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar war nga mën a fexe ba li sa wàll ci coalition bi nga doxal ko ba mu mat te loolu la ñuy lancer appel mboolem koo xamante ne yaa ngi ci biir coalition bi nga nekk responsable dans le département ni que ni ñi ñu investir du parti APR la ñu investir du PS la ñu investir du AFP la ñu investir du yeneen parti yi la ñu investir mais Benno Bokk Yaakaar la ñu investir loolu moo am solo yaakaar wala di ko bëgg ci seen xol nekkul muy vote sanction muy muy boycott nekkul nekkul loo xamante ni lu nit war a mën a xalaat sax ba di ko def ñi nekk ci biir gouvernement bi wala ñi nekkul ci gouvernement bi kenn ku ci nekk rek war nga mën a xool ni mankat su ma su ma su ma sédduwul sax am na koo xamante ne jege na ma sédduwu na ndax dañuy faral di wax ne olof day faral di wax ni génn golo gudd na wante loo ci laal sa borom yëg ko ndax kenn te it lii firnde bi képp koo xamante ne nekk nga responsable boo xamante ni ci biir coalition benn bokk yaakaar nga nekk président Macky Sall jox na la gëdd jox na la cër ci li nga xamante ne nii moom mooy gouvernement bi ndax dafa ne ñëw leen ñu gagné ensemble ñu gouverner ndoo ensemble te loolu noonu jàpp naa ni amul kenn koo xamante ne kii nii am na ci sikki sàkka wala werante kon bu ñu demee ci tànn ñu gëm ni yàlla suñu borom moom mooy dogal yàlla suñu borom moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy xool la ko soob mu def ko ñun ñëpp nañ ko àndandoo te ñu nangu ko vote sanction wala boycott amu fi wàll ndax war nañu gis ni eh, kenn ku ci nekk ci parti yi nga xamante ne ñoo composé Benno Bokk Yaakaar soo ci sédduwul it ci biir gouvernement bi que ni responsabilité bu président yëkkati teg ko ci sa loxo sa responsable teg président teg na ko ci sa responsable wala mu teg ko ci ñenn ci ay responsable yoo xamante ni ci parti boobu noonu la ñu tukkee kon gisuñu ni bu ñu ma séddul rek man damay dem croiser samay loxo wala damay dem ma ñàkk voté wala ma ni kat sama ay nit voté leen nangam ndax li nga xamante ni jàpp nañ ko au niveau de la coalition li ñu doon am Euh, euh, donne bi changé na au niveau du département kon dafa war a mën a yokk ca kanam mais waru mën a nekk loo xamante ni ay